réew mi kenn mënu leen fay. waaw ñi yor réew mi kenn mënu leen a fay. waaw ñi jàngalaate. waaw kenn munu leen a fay jàngalekat yi enseignant ñiy faj xale yi. waaw kenn mënu ñii faj nit ñi. waaw kenn munu leen a fay ak ñi reetaanlu ñooñu moom ñii ñi reetaanlu nit ñi moom baax dama foog ni ñooñu moom gouvernement. <laughs> wala maa mel ni <laughs> maa ngi lay ziar. baan lu rafet daal na rafet rek rafetal naa xool naa loo xam ne mënoo koo teggi bàyyi li ma lu ma teg nga teggi ko Ndiaye maa ngi ziar <laughs> doole ci kilifa diine yi. am ah, ah, ñooñu moom ñooy réew mi. moom kenn mënu leen a fay ñoom it. ñoo waaye ñu si jàmm waaw ah, non ñi reetalaan ñi reetaana. reetaan waa ñi reetaan waaw ñooñu d' naa ci ak yow. waaw d' naa ci ak bu baax a baax a baax. xam nga xol bu féex. tey lu xew tey. mooy non déet wax dëgg rek. waaw <laughs> wax dëgg rek maa ngi ci surtout jàngalekat yi aussi xam nga tax métier jàngale metti fii ci senegal mooy lañuy ñuy def bàyyiwu leen ñu def leneen te la ñu nekk mënu leen a yor. dëgg la moo tax mu compliqué. sa diir dire enseignement yow enseignant bi jàngale day jël sa temps yépp mm-hmm. pour nga xaj-xajal ci leneen day jafe. Mm-hmm. te la ngay liggéey bu weer deewee mënu laa yor. dëgg la de xam nga bu la neexee mën ngaa animé après wàcc fii dem ci soirée da gàllaay jóge ci soirée da gàllaay après daal di ni wolof di wax kusum taatu mën a arrondir say fin du mois. Mm-hmm. mais jàngalekat bi huit ba 16 heures jàpp 17 heures ma nga fa. dañuy joxe mm-hmm. ay cours bu duggee école mooy gën a sonn élèves yi fu tëdd nelaw. dañuy joxe ay. Mm-hmm. cours de renforcement ay cours du soir nañ leen ñaana rek. dëgg la gën leen a xoolaat gën jàppale. gis nga ñaxtu yu métti yi xultu yëpp xol bu jeex la rek. loolu rek la xol bu jeex bu jeex la rek. homme de tenue ak médecin ci mbedd mi di muy def euh, préavis de grève. amagul de wala plateforme revendicative. amagul de ah, jeex na amagul de. mi ngi noonu. baan nga ni euh, fu nu jëm nga ni baan. Euh, dafa am benn xale bu jigéen daal bu ñu seet si oh ah léegi lu mu doon yow. waaw euh, kon baat ñu seet ko feneen dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne daal dafa am lu ko dal. dafa am benn vidéo bu may gis. vidéo bi ñu ci loolu laa nekk nii. waaw après mu ñu ñu doog ko parce que am nañ numéro waa ji euh, pour jël ko jël version tout de suite. avant ah. ñu koy joxe waaw maa ngi doog am numéro bi numéro bu baax. xam nga ban vidéo laay wax. ban ci mooy xale bi. xale bu jigéen bi ñu ne. waaw jëkkëru yaayam. waaw moo ko violé. Mm-hmm. ba ñu yóbbu ko hôpital Fann. Mm-hmm. am ay vidéo buy circuler. Mm-hmm. ñu gis ci mu mel ci du lépp lañ mun a ci rajo mais daal anam bu ñaaw. waaw ñu ne xale bi trois ans la am. video boobu laay wax. man vidéo boobu gowma gowma ko. Mm. gowma ni vidéo boobu Sénégal la. man loolu nag man doy baan man la engagé. ku mu neex nag nga gëm leneen. waaye man Ndeumbeuck Ndoye Bane vidéo boobu di circuler ñu naan cas boobu la di bokkoo méngaloo cas boobu jàpp naa ni vidéo boobu ak cas boobu bokkul. jàpp naa ni vidéo boobu du du ci réew mi. man Ndoye Bane loolu nag man. mais par contre li am mooy. am na benn xale bu jigéen. loolu am na. bu jëkkëru yaayam violé. waaw ba gaañ ko. waaw. ba ñu yóbbu ko hôpital Fann waaw loolu dëgg la loolu mu am loolu moom am na léegi nag ndax fee boobu ak vidéo bi ñu ko booleel benn la waaw loolu it ñoom ñoo mën a ñoo mën a ñoo ko mën a àttekat di enquêteurs yi ñoo ko mën a leeral yenn saa yi dafa am ay coow yi am mhm. nga gis benn nit mooy toog ci néegam mhm. jël benn vidéo fenn mhm. def ci audio soo jëlee audio bi sax soo dégg defee dégloo audio bi maanaam du wax lu leer ci audio bi kii ñiy wax ci na nit ñi moytu loolu jël benn vidéo rek def ci ojo rek partagé lii de fii la xewee pa defoon nañ ko ci temps yi kii amee ñu doon rayante fële boori Afrique du Sud def xoma fan ñu jël ay image yoo xam ne centre Afrique woon ca guerre ba mm-hmm. publier ko nit ñoo ngi rey sénégalais yeeg ñoo ngi rey ñeeg ñi publier ko muy circuler ci dëkk bi loolu c'est dangereux nit ki sooy publier benn vidéo li ngi ciy wax nala leer ne lii fii la amee kii doomu diw la nangam nanga wax ci lu leer naññ waaye vidéo boo xam ne nit ñi dañ koo seetaan seetaanati ko seetaanati ko am na ay vidéo yoo xam ne depuis cinq ans la ñu ngi circulé waat ci biir dëkk bi mu mel ni démb la. parce que li ma jaaxal mooy lu mel noonu. Mhm. bu eggee hôpital. Mhm. waa hôpital ci boppam ñooy saisir police. Mhm. wala gendarmerie. ñoo ciy topp donc lan moo tax. mu échappé leen ba mu jaar ci vidéo ba nit ñi di ko partagé jaaxal na ma. pour autant. Mhm. du ma ne du Sénégal du ma ne Sénégal. Mhm. nañ bàyyi ba ci kanam mais lu mën di am daal moom. ci mhm. ni ñu ko waxee loolu am na am na benn xale bu trois ans boo xam ne. Euh, jëkkëru yaay moo yegg ci kawam. mu am ci jafe-jafe ñu yóbbu hôpital. waaw loolu am na moom loolu am ko topp mais vidéo kii nii gars yi def attends njaay kii biir bi day daaw. loolu mooy loolu mooy feebaram. waaye déet waaye ban yow tamit. ah mais noonu ah, fii nag. mais feebar mooy feebar mooy du ah mais xeebaram la looloo ko dal xeebar bu ko xeebal soxla moo ko soxla waaye nag saa yi ban. te lu nekk fu la neex. mais non non feebar la ça c'est humain. feebar la. coronavirus ñu ñu ñu ngi koy kaas. ay paludisme feebar la comme mel ni tànk yi métti sa bët yi métti loxo yi métti. ba da nga koy teg dama ni c'est humain. ba da nga koy teg waaw waaw déglul. dama am problème bëgg ngeen jàppale ma ndax instant bii sonn naa trop. biiruy daaw di métti laa amee ut la woon ut ba mars am huit mois mu sonal ma trop fu nekk faj nañ faj nañ ci garabu tubaab faj ko ci garabu olof yi mënuma fexe ba e wér instant bi te dama doon jàng la ren jii sax jàngu ba dama def année blanche ndax noonu xaw ma la may attaqué mën naa commencé bay jàng attaqué ma moo tax ren dama toog def amee branche jànguma sonn trop hôpital jaabante hôpital def na analyse trois fois def écho analyse yi dañu génne dañu génne mais génne wu ñu mënuñoo benn feebar écho bi ñu ne am kyste mais kyste amul benn problème koy traité mais si noonu ñu may jox garab ay garab calmant mais garab tubaab su ma ko tax sama biir di sedd sama biir bi dafay gën a metti di metti ma ne ma wax ak sama yaay ñu koy tey ñoo dem ci garabu orange bi ba xam comme que garab tubaab su ko naanee sama biir bi day metti léegi si sama yaay sama tante bi ànd ak man yóbbu ci benn ñu tattaleen benn mairie ñu dem ci benn mairie bi mairie bi dañ ko jox lu mu lekk mais mënu koo faj yabal feneen léegi ba mu yabalee feneen ñu dem ci maire boobu maire boobu ni waa waxaat la même chose ni dañ ko jox lu mu lekk a mais yooyu am na ku ñu njëkk a wax dañ ko jox lu mu lekk maire boobu tamit daan ni mën na ma faj ni ma dama koy naan si ngoon nga naan ko après nga ñëw ma dindi la ko ma def noonu ba ma xëyee ma dem maire am lu mu génnee sama biir bi ni ma lii la la nga lekk avant loolu sama biir ni mu daan daw da daan daw di di daw di metti ma koy booleeg wàccu mais depuis maire bi bi ma dindilee loolu ma dañ jox loo lekk ci laa gëj a wàccoo gëj naa wàcc ba ma na un mois un mois ay ay fan mais boobu ba léegi gëj naa wàcc bii daw bi moom ma jaaxal day jàkkaat bi ko daw may jaabante ci dus ba suba ak ngoon guddi gi ñëpp tëddee. laa doon soo damay dem ci douche ba presque du ma nelaw fajar bi laay doo ko mën a tëdd tuuti nelaw man sonn trop nag ñu koy faj fu ne faj ci garab olof yi ci garab tubaab bi mënaguma fexe ba wér te yàgg na trop buy buy daw pendant huit mois loolu yàgg na métti na daf ma jeexal tàkk te instant bi élève laa dama war a jàngi te sama bi su arrêté bi gëm naa mën na sama jàng mën na léegi nag ma bëggoon ngeen dimbali ma ci kum ku ma mën a faj fajal ma sama a bi ba mu wér ndax dama bëgg déposer candidat libre te mënaguma ko déposer ndax mënaguma jàng samay leçon instant bi su ma commencé bay jàng biir bi attaqué ma ma daal di arrêté dem ci douche ba ñëw su ko defee damay taayal teg tayal ma mën a jàng soo ne ma bëggoon nag ngeen jàppale ma ci ku ma mën a faj ndax sama biir bi instant bi sonal ma damay ci douche bi huit bii bi di daw di metti di di daw di metti moo ma sonal nii ci ko ma mën a faj ndax sonn naa trop dama bëgg a wér beneen kii at hmm, ñoo xam ne du ñàkk ñu am luñ ci xalaat. ah sonn yóbbu nañ ko ci maam ma ni faju na da bay bëgg dee. daal mbir mi daal doy na waar. en tout cas ku xalaat ni mën nga koo dimbali rek 77 150 17 17 ngeen mën cee woote wala envoyé ci li nga xam ne xalaat ngeen ni bu ko kiiwee rek euh, problème am mën naa lijjanti ko. mën naa lijjanti Ndiaye. waaw lii moo nekkoon problème xëy na su ma nekkoon yàlla ab jullit du ko wax mais su ma su su ma nekkoon yàlla am na feebar yoo xam ne du ma ko teg jigéen. Mhm. naturellement dañu bëri kersa. Mhm. donc euh, am na yoo xam ne tey bu leen dalee ñaari la leen di def. Mhm. ak benn nu ma koy waxe ak benn nu may fajoo. Mhm. xam nga bala ngay xam ne dañoo bëgg di dox ci sutura. Mhm. nga toog jigéen ju la ñeme ba mu wax la li muy dund. Mhm. wala li muy toogaale. mais jamais nga xool leen. xoolal ko ci ñoom. waaw yow boo amoon yenn pouvoir yow ferber bi mën nga koo teg xale bu góor yow. ci yow mi sax kenn am waaw waaw kii wóyul kii li mu wax. li mu wax kii ñoo niroog. ne waaw waaw. ndeysaan nee na moom dafa feebar problème mu. séeréer la am. moom dafa moom dafa am problème séeréer. waaw. doy na waar. ku nekk ak ku la la la kii mais en tout cas ñiy déglu daal. surtout fekkee am euh, àdduna ngi noonu. Mm-hmm. kii li mu bëgg. waaw moom la kee ñàkk. Mm-hmm. kee ña la mu ñàkk. Mm-hmm. moom la kii bëgg. àdduna ngi noonu moo tax gis nga ab jaam li mu war a sant yàlla dafa. dëgg dëgg la de. ab jaam li mu war a sant yàlla dafa bëri. léeg-léeg nga gis ko nekk ci tali bi yor otoom mbëkk moroomu otoom ñu taxaw di xuloo di saagante nes tuuti la ñuy daw ñoom ñaar ñëpp yam ci koo xam ne yàlla ci chaise roulante la ko teg. wallaahi wallaahi. xëccoowul tali. xëccoowul carburant. mbëkkantewul ba noppi ñëw di la wax ne la sa wërsëg may ma ci maak yow ñu dund. Mm-hmm. moo tax nit mu war a sant yàlla. bëri na. leer laa la wax. Ndiaye nga gis abaa mu mbëkkanteeg baan ci kii bi. xam nga tamit xam nga tamit xam nga tamit jox nga exemple bu baax ba ñëpp di kontaan. looy ji waxee ay. dañu ëffal. ban dem. Ndiaye ñoo ngi gis benn euh, jot nañ ay ay xibaar benn waay boo xam ne gis nga vidéo waa ji nga xam ne euh, ay gars dañ ko yóbbu géej. dóor ko dóoru dóoru dóoru waa ji yaram yi moom yàqu na moom. te maa ngi wax léegi kay ki ma doon waxal ni ko nee leen parents yi ñu yóbbu ko hôpital sinon da ngeen xëy fekk mu dee ci kër gi. ndax yaram wi amul fooy laal te a doonul doonul ay léegi. ñu ko doon dóor ak ñu ko doon am nañ benn artiste bu tudd Ibra Naajo. man xaw ma ko. xaw ma Ibra Naajo. Ibra Naajo waaw. amagul ci artiste yi Naajo. Mm. Ibro Ibro. Ibro waay kat moo way Ewaay Zamba gi gi aywa mbaara ko kóor kóor kóor kóor kóor mbaara ko kóor góor góor. waaw loolu dégg naa ko voilà moom ma yeggali wala. voilà ah, léegi wóoruñu waaw de toute façon daal vidéo bi ñu gis. ak waa ji nga xam ne moom leen dóor nee ne dañ koo jéem sàcc xaw ma loolu ngeen seen nopp yi. dañ koo fekk mu koy dóor wala nit ñee ñi moo ko dóor. moom ci waa ji ci boppam mooy nettali. Mm. ki ñu dóor mooy nettali nii. waykat bi ko way waykat bi ak ay nit ñoo ko jàpp jëlee ko këram yóbbu ko géej dóor ko trois heures du matin ba six heures du matin. ndax problème mu airport déglu ko. teguñu ko fenn. ndax papaam jëlee ko suñu ànd loolu papaam loolu tax sax mun naa ko bàyyi ko. non non dañ kaa jël si kër gi ne ay xarit lañ yóbbu ko loolu tax papam bàyyi ko mu dem jàpp yaramam bi dóor ko def ko nii ndax airport mais nag boo taxoon sax si seen ñaan nit ki airport bu bàyyi ko mu may la airport ndax jarul li jàpp doomu aadama dóor ko mais nañ xam ne yoon dëkk bi am na yoon. ba pare nësal ko si gi. jël seen téléphone caméra ko. non bul suul Ibro Naajo la Ibro Naajo artiste bi boppam tam dëkk Parcelles Assainies moom moo ko def jot ni ñu jóg ko géej waaw. ñooñu jàpp kanam bi dóor ko tàggat def leen leen loxo bi dafa damm kenn xamul dammul ban loxo la si loxo bii dafa damm kenn xamul ba xam dammul jam ko ci bopp boo bàyyi nii ndax lan airport airport jar na lii man ko wan waaw ay trois heures du matin. mais nag trois heures du matin dañu commencé dóor. trois bu cinq heures gaay la. waaw yow ma géej bu jógee géej tam ñu gis laa bu ma doxu baax sax. mais su ma doxee rek damay daanu. waaw six heures maa ngi daal laay soog a demaat seen bu ma fa demee ba ay huit heures. génnaat si biir ñu amaat problème duggaat si biir mu génnaatee nag laa dem ñëw ah, ñu la doon waaw ñoom laa àndal bu foofu ñoom ñoo ma yóbbaati. waaw te ñoom su yóbbaat bi yëpp man maa ngi ñu bëgg laa jaaxal moom parce que li ñuy wax nii moom dara laa si xamul ba pare FM jëlee mu kaw. waaw sant yàlla quoi. bu xam naa nu mu demee sant yàlla. waaye kër si biir salle bi nekk eh, si biir néegu naa yow. dañuy wax jékki-jékki ba si kanam. ku mu neex jékki-jékki dóor. si ñu jëlee benn ànd bu nekkoon foofu noonu ñu sotti bi. voilà après ñu bàyyi ma. ci géej lu xew géej la géej la doon géej dañ sama tànk si biir géej ma indi naan ndox bi kay. suñ naan kay bëri na. daanaka ma parkaat suñu mu tax la ne di waaw loolu daal lañ lañ a def. ñoo fi bu ñëwee dañoo ne ana xaalis mu ne boobu maa ngi doon waaj a ñu ngi ànd ak xaarim si laa génn jaay laa jàkkaarloog ñoom. xam nga ubbi bunt bi génn mu génne si biir ñu ne ay ne la kii mu leen noonu dañ leen génn génn si biir man ñu wax nii da di dem di dem Ousseyn ba si kanam ñu ne dañ koy génn mën na wax nan laa génne. Cheikh Amadou ne mooy yéen yéen da jaay ba rek muy dundee rek rek ku yi commencé. Mm-hmm. waaw mais lii di Djibi Ndiaye moom ak deux VIP bi. bon ñooñu moom lu mu moom xaw ma seen tur mais su ma jàkkaarloo ñoom naa leen xam. waaw naa si la bokk. léegi amuñu la doon. léegi dootul kay yegguñu mooy ñëw te la wax nii. su ma dox su ma doxee trois fois damay daanu. ah da nga doon dox. donc man si dara ba instant yii sama cër yi ñoo damm su ma doxee deux trois fois damay daanu. bu ñu ci noonu foofu man maa ne damaa booy sang parce que ah jël kii nii doomu taal xëpp ko sa kanam gi yëpp ak sa yére yi kooku da ngay sang. Ah, ba ñoom dañu koo xotti. sama tool bi tamit moom wàllu dafa garaaw doon na si kiiw géej gi. Mm. waaw loolu il faut man maa dox si laa ñëwee idée bi noonu ngeen gis moom. mais mm. eh, boobu ay waxam na Ibro. naajo ak ay nitam ñoo ko def loolu ñoom ñoo ko wax bañ ko yóbboo après ci gi dañoo yóbbu xaadim après ñëw ci ginnaawam dugub yi néegam di seet li ñuy li ñuy wax ni moom leen leen sàcc fekk fa papaam papaam lii la wax. ñu ne ko kaay dañ laa soxla. Mhm. gis nga bi ñu ko nee kaay dañ laa soxla. xaadim génn ne lan mu ne dañ laa soxla mu ne ah, kon xaar ba xaar mu ñëw mu jóg sol dalam ubbi. bon xaadim dellusi dellusiwaatul nii la demee. foofu waaye ji tos la indaa dafa ñëw ne bamba xaadim la lan la lu xew mu ne dañ laa soxla ko dañ laa soxla kaay dañ laa soxla. léegi bi mu jógee ba kii ma ne ko ah boobu comme dégg comme dégg génn. solo sa solo sa daal kati ñëw xam naa ne kay dañ naa war a soxla. xam nga man amoo ci ñaar njor. Mm-hmm. léegi nag. bi mu génnee dañuy ñëw fi moo tax amuñu. dellusiwaatul léegi bi mu génnee. Mm-hmm. dellusiwaatul. foofu lañ ko yóbbu. waaw mais xam nga woon nañu téléphone ñëw fii ci néeg bi di par. biñ tey si waatee. ñun dafa am benn affaire bu ñu bu bu ñu xaatiñ ci def. ma affaire bu mel na ma ne loolu xamuloo ko. boobu nag yóbbu nañ ko dóor ko. léegi xaatim ne leen dem leen seet ba xam ndax di ngeen ko gis. léegi xaaral rek xaatim moo ma woo ma uyu mu ne baaba nañu seet tu lu nekk ci néeg bi nañu seet. Mm-hmm. li ñu wax bu fekkee mi ngi foofu nga xam ne man la. Mm-hmm. nii la xaatim wax du portable baa ngi jël. Mm-hmm. nga génn xajal leen néeg wala dajaloo ma génn ma mm-hmm. gis nga kii sànq bi. maan mm-hmm. maa ko aj fale. Mm-hmm. jël ser bi darab bi. tegu ko nii ci sees bi. daal di jël sama ser bii. boole ko kii bi lépp ma teg fale. ñu jël mat la bi. noo kay. man la lu ngeen mën leen maa wax lu leer mu ñu ne ma am na na ci wax ne. comme comme ni nii la demee kon kon kon kay gisu ko. Hmm. ñu ne kon kay gisu ko. waaw. kon kay gisu ko ñu ne kon kenn ki ne kon kay gisu ko seet nañ kenn ku ne am ah, noo garaawul kon léegi nañ dem ma ne kon kon bu ngeen demee boog ngeen ne ku mu ñëw tëdd si nii laa ca toll. paa bi xamul sax ñu ngi koy ñu ngi koy topp. man xamu woon dara. xamu paa bi bu loolu booy bi génn fii. Hmm. Ndiaye bi loolu lépp amee ñu déglu paa bi ak ak doom ji gis nga vidéo yi Ndiaye ni ni ñu def booy bi. Mm-hmm. jokkoo nañu ak euh, Aba mi sax moom jox numéro euh, Ibra Naajo. Mm-hmm. woo nañ Ibra Naajo boobu ba léegi ñu ngi koy woo téléphone bi day sonné du jël. waaye il paraît que def na benn démenti. Mm-hmm. di weddi tuuma yi nga xam ne moom lañ ko teg. lu wax du dëgg. lii la wax. gis benn vidéo léegi ñu bind ci Ibro Naajo moo jël kooku boole ko ay nit ñu dóor ko loolu amul parce que kooku man maa ko gisal sama bopp fekk ko ci koñ muy toog foofu mu fekk ma fa ne ma dama bëgg a wattu ma jàpp ko jël taxi yóbbu ko ba Grand mu wattu ma fayal ko ñu ñëwaat toog ba ci guddi gi ma tëdd di nelaw mu dugg ci néeg bi fekk sama airport foofu jël ko sama rakk bi Jibi Njaay gis ko di ko dàq ñu yuuxu ko Sadio ba mu kaay ko ci loxo. jàmm bi jël ba mu kaay ko ci loxo. gars yi génn nag di ko dóor man xaw ma ñu ko doon dóor te yawul ma kenn mu dóor ko ma génn fekk ñu koy dóor ma jël ko dóor ko sama biir kër parce que am naa moom airport yi ma ko set jox ko jox ko caleçon jox jox ko mu ndékki tëdd sama nelaw ba doyal ko baax na mu ne ko waa kon baax na man maa moom airport bi may naa ko dóoru moo ko te ñi may àndal tamit kenn dóoru ko ci nañ bàyyi ñuy def nii parce que ku nekk ak may woo nañ ko wala ñu ko vidéo yaa ngi noonu Aba ci sa portable euh, Ndiaye vidéo yaa ngi noonu xam naa ne vidéo yi di ngeen ko gis ci réseaux sociaux yi c'est à vous de juger. ah en tout cas kii ñu waree moom dañ koo dóor moom ba xam ndax Ibro wala loolu la ñuy lijjanti. mais dóor yi metti na ma. mais na staffam daal di xool lii jéem ko lijjanti parce que artiste la boo xam ni tamit carrière mu ngi soo a nañ nañu xool lii ba mu leer nañ nañ nañ parce que yii moom. Hmm. waaw nañ am ah, man daal famille xale bu góor xaaki Ndour laa suñ ko suñ suñ jugul ci moom day dinañ hmm. fekk ñëw fekk laa ciy wax. Hmm. benn mooy nañuy moytu di tere suñ doom yi fréquentation. Hmm. parce que moo indi lii lépp. bu ñu mënee ñëw sa kër. trois heures xaw ma ban heure. jël sa doom génnee ko parce que affaire du copain xaritoog sama gars la am na nañu ko tere. xaari bu tëddoon seen kër. Mhm. kii du ko fa fekk. ci kër ga lañ ko fekk. beneen ñaar mooy kii nga xamante ne ji ñu ngi koy tudd ci yii muy artiste buy soog a bëgg a def carrière. Mhm. lii dafa ñaaw. Hmm? te moom du gulet. Mhm. Hmm? waaw. bari fi ñoo xam ne xam na yoo xam ne amul sens nga koy jàllale ci rajo yi. parce yaakaar da nga bëgg a yàq carrière nit mais pas mal de personnes. ñëw nañ fi yoo xamante ne ji ci soirée lañ demoon. ci agression la mujj. Hmm? kubéer bu ne nag la biteel ba def lay xeeñ mm-hmm. moom na moytu yii mm-hmm. s'il veut faire mm-hmm. na moytu yii nañu xool seen mag yi leen jiitu déggoo ci Pape Diouf te bëgg nañu mel ne moom déggoo ci Wally Seck te bëgg nañu mel ne moom nañu moytu yii ay dóorante ak ay airport ak ay yii amul sens te li leer ba leer mooy même su weddee yoon am na fi du mm-hmm. ma Ibra Naajo. Mm-hmm. waa gendarmerie ñàmbee ngi ñëw. non non affaire bi affaire bi affaire bi Paris de euh, mi ngi police parcelle mi ngi gendarmerie fii. moo ngi loolu rek. Mm-hmm. gendarmerie Naajo moom gendarmerie ñàmbee ci man dara. bàyyi ah, rek ah, ah. voilà. en tout cas mi ngi noonu. affaire yi xam naa ne vidéo yi dina. surtout tey non non nañu nañu nañu rafetal seen seen seen si yii amul sens. surtout artiste moom lii moom war ñu ko sax di laal ci artiste quoi. et puis nañu ba nañu tere suñu doom yi ay fréquentation. àndandoo. c'est soo dee artiste sax woon ne mën a sa doom deux trois heures di matin ba six heures ñu yóbbu ko géej di ko duma te yow baay bi xamoo ci lu mu nekk mhm. na suñu doom yi di tëdd heure di yeewu heure di jàngi heure liggéey heure hmm? xool ni muy àndal fréquentation am na solo de man booy bi ma doon booy bi ma doon seen yooyu de booy bu kul la woon bu dee lii moom